Hadis-i Masa Hadis-i Masa hadis Masa hadisul masa bismillah mbokk julit mbokk diwaanu jun bu néew ak li ko wër ñun ñu bàyyi xel waa Njub bu Néew TV Saloum Info itam dil si waat ci programme bu am solo ci weeru koor gi fas yéene ànd ak maanaam weeru koor gi yëpp di ngeen am seen émission hadisul masa muy émission bi wax ci diine julli koor ak ak mboolem seen i farata ak sunna yi nga xamante ni julit bi war na ko ci xam émission bi nag bi ne nag ñu ngi ciy ànd ak oustaz Modou maanaam 30 minutes xamante ne dañuy waxtaane diine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 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى هو الشعيب وصلى الله وسلم على رسول الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحابة الأئمة ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم القيامة mbokk julli السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatuhu yéen a ngi déglu TV yéen a ngi ciy ànd ak seen mbokk Modou Cissé fas yéene waxtaanee weeru koor tuuti rek njëriñ li mu làmboo di ñaan yàlla subhanahu wa taala nag mu kàttanal ñu ba lépp luñ ci mën a wax mu jëriñ ñu ñun ñëpp ñu koy wax d'abord soo ko jëriñ yéen ñu koy déglu yéen mën a yàlla yàlla na ko yàlla subhanahu wa de euh, weeru koor dañ koy wax shahru ramadan ni wax asiyam ma bayna al ramadan wa siyaam lan perangsa différence digante ramadan ak siyam ramadan mois bi la ramadan moy lo xamne day lak bakar manam li nga xamne day lak bakar bam tak mooy weer bi nga xam ne day ñëw lakk bàkkaar ba mu jeex takk-takk loolay shahru ramadan al mubarak asiyaam nag mooy jëf ji maanaam def bi mu koy def mu tere tere laa lekk tere laa naan tere laa wax ay wax mboosóor tere laa dugg ci lu sa yoon de suite ainsi de suite moo tax yàlla subhanahu wa taala bi muy wax daa wax na rek يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي ني دم يالله سبحانه وتعالى بمبتر ين بدل لين ين دف من كفة ما ورا ترى ما ورا بدل يا أيها الذين آمنوا بتري أي ني دخلنا jàpp ngeen ne man rek maa am sañ-sañu tere ak digle te dox jëm farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci ñu leen jiitu xam nga koor amoon na avant yonent bi sallallahu alayhi wa waaye différence bi mooy ni mu koy defee dinaa ci ñëw xam naa bu ko temps bi mayee mu ne farataal naa ci yéen koor comme ni ko farataale woon ca ñu leen jiitu waaye tamit moo tam farataal ko daa am benn examen bu may euh, xool ci yéen examen bi du dara moom ku gën ragal sa borom subhanahu ndax ngeen ragal yàlla luy ragal yàlla mooy koor ak ni mu tàngee koor ak ni neexee ci bakkan nga sañ koo bàyyi durant bëccëgu bëccëg bi nag bëccëg bi bé bëccëgu weeru koor bi loolu yaakaar naa ko ragalul yàlla subhanahu wa taala jàpp ma ne dañ ci euh, dañ ko def dañ ko def moo tax moom mu ne li ma ci jublu mooy ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala mu ne nag koor bobu li tax ma jog dafa dundon xel woo ko ba mu mu ne ko yow yaay kan xel ne ko yow yaay man may xel yow yaay sama borom subhanahu wa taala bi nga xam ne yaa ci man lepp te man sama ci yow dara ma ko ay ah, dama taxaw no mu dund mu woo làmmiñ ko communication bi ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay sa jaam bi nga xam ne yaa sañ ci man lépp waaye man sañuma ci yow dara mu ne ko taxawal de bakkan ne ko yow kan ne ko ah man maay kan man maay man yow yaay yow mu ko sanction ko ay sanction yu méttee métti génnewaat ko laajaat ko même question bi mu répondre même répondre même réponse réponse mu répondre même réponse mu génnewaat ko dugal ko ci safaray ñàkk lottal ko ci ba mu yàgg lool génnewaat ko jàpp ne sonn na mu ne ko yooyaay kan mu ne ko man maay man yooyaay yow mu génnewaat ko troisième fois bi nag ci la ko xiifal ay ay mois lottaloo ko lool lekkul naanul mu tëj ko fi barab ba mu sonn lool bi mu sonnee nag daal di koy génne ko laajte question bi na ko yow yaay kan mu ne ko man maay sa jàmm bi gën a xeebu ci jamono yow yaay sama borom bi nga xam ne subhanahu wa taala yaa sañ ci man lépp mu ne nag ah comme mbakkam lii la gën a ragal lekkam naan bàyyi lekkam naan la gën a ragal kon nañ ko euh, sanctionné ci lii waaw nañ ko nañ ko sanctionné ci lii moo tax mu jël آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من هناك أيام معدودات آه، أي فن يوم رك يوم خمسة يوم يولا ترام تزور ولا بنوف ترام تزور لا ولا بنوف يوم نامون واو نحن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى nee na képp ku feebar ci yéen daan day tukki na nga dog koor bi calculer jour yi nga xam ne moom nga dogoon suñ demee ba wari nga fay ko comme période bii ñu toll période saabaan bi ñu nekk mboolem empêchement bu la empêché woon taxoon nga bañ a koor woor bu jàllee te wooroo su koor bi ñëwaatee da koy def fa siyaamu saxaray ni mutataabi ay deux mois far mu ngi toftaloo nga koy woor loolu sanction la mu ne fa man minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxra képp koo xam ne mu ngi tukki ci yéen mbaa mu wopp na calculer jour ko ba xam ko bu ñu waree incha allahu taala mu daal koy fay waaw mu ne wa ala alladina yutiqunahu fidyatu taami masakin ñi nga xam ne nag dañoo mage ba mënuñoo woor ndax seen mage wala seen wér bi wala nangam ñooñu moom dañuy dépenser chaque jour lu suur miskin dañuy dépenser chaque jour lu mat lu lu suur miskin suñ ko dépensé chaque chaque weer wu jot nga génne bool joxe ko wala nga gemme 1000 francs joxe ko wala ainsi de suite ya xam rek waye dal loolu durant weer yi mom comme feebar la tay worte dem na sa médecin dem confirmer ko wo ko boobaa lo moy sa euh loolu mooy remplacer sa corps loolu mooy remplacer sa corps bu boobaa it li yalla di fay ñep loolu la lay fay parce que la yukallifu llaahu nafsan illa wusaha yalla neena teguma ben bakkan lu dul limu atane waye nak dañuy wax lu lim lim mënul waaye laa yukallifullahu nafsan illa wusaha moy tebuma ma bak benn bakkan lu lim attan mo jaamu jamm yalla ñu yalla subhanahu wa taala gal bakkan bi attan nako mo xam moom mom kay c'est-à-dire dañ koy dañ koy baña def ngir top suñu bakkan wala euh, dal suñu bëgg-bëgg bok waye yalla mom lu mu ñu teg lu ne nañ ko waaw kon ki nga xamne dafa woo dafa magge ba mën ta wor Euh, lay remplacer kooram googu mooy chaque chaque jour mu joxe euh, lu suur benn miskin chaque jour nag mu saxal ko bu ko mënee joxe joxe lépp sax weer bi moo moo gën am natt benn euh, trente kilo ceeb joxe ko baax na su ko mënul chaque jour mu di ko def ci bu bool fii sax am na benn pa am naa benn parenthèse fii nit ku ne war ut benn bool tuddee ko boolu bàmmeel luy boolu bàmmeel mooy jënd bool bu set jox sa soxna ne ko soxna si yow ñaata laa la doon jox dépense mu ne la daan nga ma jox cinq mille francs mu ne léegi teg naa ci deux mille francs léegi mille léegi chaque jour dee ma joxal bool bi parce que man amila saalihan nag fa li nafsi bàmmeel bee moom euh, loo fa deful doo fa fekk sëriñ Saliou sax rahmatullahi alayhi wa rabbi anhu daan na wax loolu nit ku ne yàlla taxale na la nana bi ñaari bir sa biir bopp bi ak sa biir bàmmeel nee na sa biir bopp bi bu lay tel moy wa maa min daabatin fil ard ila ala llahi risquha sa biir bàmmeel bi na dem sey te ndax lo fa deful boko fa fek man amila salihan fali nafsi wa man asaha fa alayha wa ma rabbuka bi zalami lil abid loolu parenthèse la won rek eh, kon non la demé nit ku nek Warna naa ut di def lu baax nit day am njëriñ nit war normalement bu tukkee benn fan rek ñu xam ne wax dëgg yàlla tey ñu biir biir jël Ablaye Camara de tey moom jóge wala tey de Cheikh Pam Ndiaye jóge fi ndax buñ fa daan rabbul alamin dañ daan suur dañ daan ba dañ daan kaf di dañ daan nang maanaam nit Warna bu tukkee rek ma am vidd normalement loolu nag dañ koy liggéey dañ koy liggéey mooy jënd benn bool def ko tuddee ko lii mooy sama boolu bàmmeel chaque jour doo ma ci joxal doo ma joxal jóob ñu dajji compte bancaire yi def ko ci compte bàmmeel yi ndax yamal xiyaam wala sax barzaq balaa yamal xiyaam tar na taraay boo xam ne euh, loo fa deful lu ne nag doo ko fa fekk nit dana ñëw ci yamal xiyaam ñu ci ci barzaq boog barzaqul akbar dana ñëw bàmmeelam yaatu lool mu féex lool leer lool fekk euh, moo ko liggéey nit dana ñëw it safaanu loolu yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal moo tax ñi nga xam ne dañoo tële ba mënuñoo woor loolu mooy seen remplaçant mais wa man tatawaxa xayran nag foofu wa xayrun lahu képp xam ne nag doon ko majana mbaa mu feebar mbaa muy tukki waaye mu feebaree ne ah garaaw dinaa naa woor rek naa woor bataay moo gën bataay moo gën ndax yàlla moom ku jàpp day maye loolu wala fa koy wax rek yal la yàlla may nangam wala yàlla waaye yàlla moom mayewul dara yàlla day jaay yàlla moom mayewul dara wala kullin darajaatun mimmaa amiloo waaw képp koo xam ne am nga cër ci yàlla fekk la nga def yonent bi sallallahu alayhi wa eh, jëm ci suñu borom subhanahu ay ñabi bëgg ko wër lool ñabi bëgg ko wër lu wër lool nga xam ne tey boo fa demee ba àgg moom daanaka sa lépp baax na waaye nag balaa nga fa àgg mooy poser problème waaye yoon nga xam ne nag dafa jëm safara macha allah moom da jaar fa daa yomb jaar fa dafa yomb lool moo tax bakkan dañ koy not moo tax mu ne eh, wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin wa man tatawahha khayran fa huwa khayrun lahu sumo khairul lakum in kuntum ta'lamun ఖైరుల్లకుం sumo khairul lakum in kuntum ta'lamun తాలమూన్ cuman wore nak mo mogen ci yeen bu ngeen xamone ni mo mogen ci yeen dañ ko wara xam parce que wor yeen bi sallallahu alayhi wasallam neena sumo tasihhu manam so bëgg am sante bu bu bu bu bu bu sax del dëkke ko rek nga xol so bëgg am sante bu sax del dëkke ko lool sax actuellement scientifique yi dañ nañ ba découvrir ko wone ne ku la ëpp lu muy lekk moo la gën a wéradi te yii lii bi ko islam di wax ay siècle la ay siècle allah mais léegi dem na ba scientifique découvrir ne ku la gën a euh, néew lu muy lekk moo la gën a wér ku la ëpp lu lekk moo la gën a feebar te nag euh, koor yàlla subhanahu wa taala da ko barkeel bañ na ko ba sax daa wax ne képp koo xam ne dund nga fekkee weeru koor ba ba koor gi jeex te defoo ci daara luy mënu jaam yàlla parce que yàlla malgré buy buy fay loolu benn boo bu baax boo def diis la koy la koy waaye bu dee weeru koor nag day double rek wallahu yudaa'ifu liman yashaa am bu dee koor moom amul limite day double rek moo tax li muy fay ci koor kenn du ko fay ci benn weer may fay ci koor yalla subhanahu wa taala du ko fay ci du ko fay ci ben wer euh suñu mbokk jigen ñi nga xamni yalla subhanahu wa taala da len di euh gis lo yenn sen yoy nga xamni reg la ñuy gis règle nga xamni dañ koy gis euh nga xamni ñoom neenu ñu woor wer yëpp té sax amul ñëw na duñ ko def ñii nit ku ci yàlla nattu ba nga woor ba ci gis ko daggal calculer jour yi calculer boo calculer jour yi xool waxtu yi na xam ne euh, ci nga koy ci nga koy fay su jàllee nga fay ko parce que loolu moom natt la bu leen yàlla subhanahu wa taala jàll am na benn soxna sax mu ma ko doon laaj ñu woor ba

mu ne nag chahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor mooy weer wi nga xam ne ci la ñu wàcce alquran ñun nag alquran suñu diggante moom tari rek lañ ci lañ ci xam te alquran daa dépassé loolu yàlla subhanahu wa taala daa wax ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha alquran dañ koy xam di xam li muy wax di xam li ci yàlla digle xam li ci téré su ko defee nga mën xam ci lay teg sa tànk waaye ñun tari rek lañ sàlloon moom tari rek ñun moom alquran dañuy tari rek tari bi nag baax na dina ci am tiyaaba waaye nag daa lu ko lu ko ëpp solo daa lu ko ëpp solo sama sëriñ Ndiobo Fall rahmatullahi alayhi daan na wax ne kaan de tanayu jabal bi léegi loolu bu dee ci alquran kese kese kese nga yem war a wax ci diine parce que alquran moom day tënk alquran day tënk gis nga ko sax euh, yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaama bi mu njëkkee woon kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun ni ñu koy defee boo jàngul xadis doo ko xam ak waxtu yi ñu war a woor waxtu yi ñu war a dog ak ni nga mën a jàppee say faratay koor yooyu euh, soo jàngul ay xadis jàngoo xam-xam doo ko xam parce que alquran day tënk aj màkka it daf na wa attimul hajja wal umrata lillahi fa in uxsirtum fa mastaysara min al addi ni ñu koy defee boo jàngal xadis doo ko xam moo tax jàng alxuraan kese kese kese loo ci yéene waroo wax ci diine ñun nag malheureusement da ngay tari alxuraan rek baqara ba naa te loolu lu yomb la ndax jumtuwaay yi koy maye mënu fi na xus jéemoo fii yow mën ngaa tari baqara ba naa waaye inna a'taynaaka al-kawsar ku la ko doon firiloo doo ko ba pare jàpp ne yaay sëriñ ñëpp loolu mooy danger réew mi loolu mooy danger réew alxuraan dañ koy xam والذين تعلموا أن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول للذين آمنوا لولا نزلت سورة وإذا أنزلت سورة محكمة وسكر في على القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض و... kon suñu technicien bi mu ngi wan mu ngi xamal ne defe nañ benn minute benn نجنا لارا لينجون وخلجي سكر لكو ينن أحاديث لارا الفصليني بدو بدو لارك سنوي سكر لكو ينن حديث نيجرم الحاجي بامجاي يكون يانا يالله سبحانه وتعالى يالله دفعك توفيق دولة من دبنا وخم مول يالله دنيا الحاجي عبد الله كمرة بند كمرة كمرة لواي مكوي يانا لبا وبا أبا أبا يالله سبحانه وتعالى سموه وامد دفعك توفيق yaatal wërsëgam te barkeel njabootam ñu ngi wax ne daal émission bi nii début bi la waaye incha allahu rabbul alamin dinañ gën a xóot ci yeneen sujet yu gën a euh, fiable incha allahu di taxaw fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp li ci jub moom moo ñu accompagné li ci dëng itam matadu doomu aadama la ndax inna al insana xuliqa aluhan ida massahu sarru jazuan wa ida massahu alxayru manua اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نبي الأمي الذي تنحل به الحقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصن الخواتم وينتشق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديث المساء حديث المساء حديث المساء Ndao Agissou Massa bismillah mbokk jullit mbokk diwaanu jun gudoow ak li ko wër ñun ñu bàyyi xel waa Njub bu Ndaw TV Saloum Info itam dil si waat ci programme bu am solo ci weeru koor gi fas yéene ànd ak yéen 30 jours maanaam weeru koor gi yëpp di ngeen am seen émission Agissou Massa muy émission bi wax ci diine julli koor ak ak mboolem seen i farata ak sunna ak nga xamante ni jullit bi ko ci xam bi nag bi ne nag ñu ngi ci ànd ak oustaz Modou Cissé di leen ko kénbateni fanweeri simili maanaam 30 minutes yoo xamante ne dañuy Future pronto, Disney, Disney, Disney.